asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziar fa séene dellusiwaat ak yéen ci seen uh, juróom-ñetteel bi numéro ci xisatu Souleymane ñoo ngi yemoon ak yéen ci fi nga xamee ni Souleymane uh, rey na bàyyi ndaw soos di wax jaraada jël doomam jooju indi ko ci këram daal koy boole ci ay soxnaam soxna si nekkinam ci kër Souleymane xawoon jaaxal Souleymane ci xol buy jàq waxtu ak ay jooy ba Souleymane laaj ko ne ko lan moo waral sa melokaan wii nii nga mel nii di jooy ba bëccëg ak di jàq waxtu ne ndax it euh, Souleymane booba ndaw si nettali nañ lañ njëkki loolu tuub tuubal na ko ndaw si tuub ngir amagutoon confiance Souleymane waaye tuub gi ko tuub ci kaw noonu rek euh, amagutoon confiance bu mag ci Souleymane bi ko laajee nag ndaw si ne xamal ko ni sama way juru dafa amoon nguur nguur gu saa bu sama xel demee ci moom ma xalaat ko rek xalaat nguuram ga day jeexital ci sama xol mu sama xol am jàqare ba noppi may jooy Souleymane ne ko loolu de jàpp ma ni lu war a mën a nekk la ndax ba ma ca ba ma la ca jëlee defal indi naa la ci nguur gu rëy rëy goo xam ni jële euh, ci gi la yàlla jox moo gën gisa baay ne woon moo ko ne ko yàlla it àtte na dolli la ci leneen lu gën mooy nga tuub dugg ci lislaam kon da koo xamal ne ko li la yàlla defal moo gën ndax tuub nga dugg ci lislaam maanaam ci ci ci istisla islaam googu mooy la ba tuub na gëm yàlla gëm yàlla topp Suleymaan ba noppi Suleymaan buur la boo xam ne nguuram ngi amul ku ko ëpp nguur ci kaw suuf tey moom Suleymaan def na ko soxnaam euh, kon amatul lu muy wax bu ko Suleymaan waxee loolu mu ne ko waaye daal loolu nga wax lépp dëgg la lu baax la waaye man sama bopp sama xel du jóg sama pàppa du jub sama baay dama la doon ñaan rek su ma nee nekk nga wax sa sayaaku yi nii saytaane yi ñu man maa defaral yattal ut ab benn estati nattal ma sama jëmmi baay yattal ma ko ba rafet ñu sampal ma ko sama kër ma ma di ko ko man di xoole loolu daal su ma noonu am moo may gënal waaye comme Souleymane soxna si bëggoon na ko bëggoon na sax soxna si lool mu ni aayul mu defaral ko loolu mu di wax sayaatéer ñu yett ku jëm ku mel ni jëmmi baayam ba mu mel na mu war mel ba mu nañ ko nam mel ci jëmmam nga xam ne daanaka ruur rek ci jëmmu jéeg lépp nataal bi ñëw na ñu sampal ko ndaw si ci këram bi nga ko sampalee ndaw si daa di jël yére ba baayam daan sol ba mu nekkee buur bu mel noonu mu solal ko statue bi nga xam ni soo ko xoolee da gis jëmmam carrément mu mel noonu ndaw si it am na ñu ko waroon nga xam ne comme fekkee Souleymane buur la di ab roi moom kon ab ren lay doon moom it ñi daan wër Souleymane ci nga xam ne ay ay day am ay liggéeykat ñu koy toppatoo ci lépp lu bëgg ñu koy defal ndaw si amoon nañu mel noonu moo taxoon biñ ko sampalee statue boobu nag ci këram waxtu woo xam ne Souleymane génn na rek ndaw si daal di dem ci statue boobu ci baayam daal di koy sujjootal bu sujjootee tamit dagam yooyu ànd ak moom ñoom it dañuy ànd daal di sujjoot comme ni mu ko daan defee ca nguurug baayam ga nga xamante ni dañ daan sujjootal lu dul yàlla bi mu sujjootal statut boobu nag def na ko lu tolloog ñeen fukki fan di te ci biir kër Souleymane te loolu Souleymane yëgu ci dara nga xam ne kon waxtu wu ne rek bu Souleymane génnee rek mu profité di ko sujjootal waxtu wu ne mu koy defal saa bu ko defee ñooña ay jigéenam ànd ci moom su jot ñeent fukki fan diirum ñeent fukki fan Souleymane yëgu ci dara loolu doon xew-xew bu rëy ci biir kër Souleymane ba kenn ko ñuy wax Asif ibnu Barxiya boobu nga xam ni bokk nañ ci ñi borom xam-xam ñi ñu wax ni bokk na ci ñi nga xam ni moo indi woon gàngunaay Souleymane nga ci ay nettali ñu ni moom ci boppam moo yëg mbir mi bi mu ko yëgee it ci Souleymane wax ko gi waaye da koo wax ci anam goo xamante ni dafa direct wut maa da koo wax ci manière boo xam ne indirect la nan loolu nan la ame mooy dafa dem ci Souleymane ne ko yow yonente yàlla bi man as asif ibnu barxiya man kat samay at bari na mag laa maa ngi jubbuntu faatu dama bëggoon nag am lu ma sant yàlla ci yenn yonent yi ci des nga xam ni loolu moom laa lay bëgg a ma xam nag moo ko nangul am déet kon loolu muy wax bëgg a wax Souleymane nag ba xam Souleymane dana ko nangoom déet danañ ko leeral incha allah ci suñu juróom ñeenteel bi numéro dañ leen di jox dig daje incha allah euh, ci suñu juróom ñeenteel bi numéro wax leen ci diggante Asif ibnu Barxiya ak Souleymane loolu bu koy proposé ndax dana ko nangu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa